dal leen ak jàmm mbokk internet yi ñu dellu si waat ak ci xibaaru jéeya gi xewoon fële ci Pikine di faat gu ñu faatoon soxna Fatoumata Mactar ya nekkoon ab responsable politique bu APR ci fàttali Fatoumata Mactar Ndiaye moom nekkoon na vice présidente bu conseil économique et social nekkoon itam responsable des femmes de l'APR à Pikine moom nag dañu ko faat ci anam bu ñaaw maanaam dañu ko rendi fële ca këram kañu joxoñoon baaraamu tuuma ci faat googule moo nekkoon chauffeuram bi di wuyoo ci turu Samba Sekou Dia Sow moom nag ñu waxoon ne moom moo ko rey ba taxoon yoonte ko loxo ana nan la mbir mi demee ñu ànd ceeg yéen déglu ci témoins yi maanaam ña fekkee woon mbir ma xam nañu demee ana lan lañ ci wax. affaire bi mu ngi xew diggante sept heures à huit heures huit heures moins yooyu quoi et sept heures quarante ba jàpp ay huit quoi fait euh, sama benn copain lañ yuuxu turam ñoo ngi nekkoon ci néeg bi mu tëb dóor ma yee ma ne ma papa jugal jugal am na lu xew ma ne ko lu xew mu daw man it ma daw topp ci ginnaawam. inch yooyu xaw lu xew maa ngi génn rek gis sama benn copain di génn ci kër gi yor arme bi quoi arme blanche bi ci loxoom quoi fekk na waaw yor paaka bu yoree paaka ndekete dafa moom moo njëkk a génn kër gi dugg fa fekk fa chauffeur bi mm-hmm. chauffeur bi yoroon arme bi bàyyi bu mu bàyyee daw moom it mu téye arme bi ci loxoom for arme bi daw topp chauffeur bi moom day topp chauffeur bi di ko laaj lan la lu xew ba koy laaj lu xew ah, ba mu koy laaj lu xew chauffeur bi nangul taxaw mu daw ba mu dawee ñu topp ci ma ne ñun ñëpp ñu topp ci sama commune mi sànni paaka bi ñoo ko yuuxu sax na sànni paaka bi ko mu sànni paaka bi mu sànnee paaka bi ñun ñu topp ci gannaawam boobu instant yooyu noonu xaw ma woon lu xew ndax instant bi ma ngi may soog a yow gis deret noonu affaire bi tiital ma te bu ma demee ba hangar ba ñu ne jàpp nañ ko mhm. te ci laa ne xaaral ma dëpp gaaw ndax solu ma yére maa ngi ni ma tëddee woon noonu laa jugaale mhm. ma génn ñëw sol ni ma solee yére bay dugaat ci biir kër gi mhm. ndekete aadama euh, mooy doomu madame Fatmata Matar dañu gis ñu égorgé ko ñu mel ni ku ko doon rendi muy dem gauche à droite fekk fa sama benn copain médecin mu nekk ci di def première soin yi man li moo foogoon mooy saawaay dañuy foog dañuy xaar rek mu mu wàcc quoi mais euh, ay rabbil alamin yàlla def na lu gën te en ce moment nii ñoo ngi sant yàlla ndax moo ngi hôpital jël nañ soin yi ak yooyu noonu quoi def nañ premier soin yi moo ko ci génnee ndax Babacar dañoo foogoon nii affaire yi laal na ko fu yegg foo xamante ne war na mën a dem mais dafa alhamdulilah daal léegi ci loolu ñu jàpp ci ba oto ñëw ñu dugal ko ci ba oto bi ñëwee ñu bañ ko ci dugalee foogoon nañ ñu moom kase la quoi bañ ko foogee moom kase la ñu dugg pour xool maire bi ak ndekete maire bi moom it dañ ko égorgé ci biir bañ ko égorgé ci biir da ko égorgé ba pare daal sër ci kawam muur ko quoi muur boob beeg noonu ay ñuy dugg see yi rek la ñuy seen benn maire bu ñëw xool yëkkati gis ba ñu gisee deret man ci laa reculer reculer maa ngi naan parce que lii ci ay film rek doon gis c'est la première fois may may te lii ñaanuma yàlla mu amaat fi waaw affaire yi bi daal noonu la noonu la noonu la demee daal presque ñun ñëpp ñoo ngi koy nak ñoo ngi koy nakarlu lu bëree bëri bëri parce que jàpp nañ bàcc ñoo ngi foogoon ni ñun mënuñ suñu xel mu musul nekk ci chauffeur bi la waaw suñu xel suñu xalaat yëpp musul dem ci chauffeur bi léegi après nag ci la ñu accordé leen ni bi la xam ak fait di fait yi fi am yëpp te ñun jàpp nañ ci ànd nañ moom dispensaire bi ànd nañ moom ba police mu toog kañ dellu koñ ma mën a du fi dellu ay action ak ay action yu sew daal yeneen ak yeneen mais bëri na daal loo xamante ni xew na fi dem mais échange ñu ngi koy nakarlu bu baax parce que lii du du du Pikine ñoom ñàkk wala du xurnaar ñoo ñàkk Sénégal entier ñoo ñàkk waaw dañ koy méttilu parce que nit ku baax koo xamante ni nit koo xamante ni balaa ngaa wax sax boo ñëwee bu xoolee sa kanam sax ne la Papa loo bëgg ak wala laaj la loo bëgg wala mënoo fay mënoo fay dugg nuyu ko te te doo fa génnewaale dara amul koo xamante ni ñëpp lay defal ngir yàlla moom boo koy balaa ngaa def dara sax moom moo la ciy jiitu loo ko wax yàlla dina yàlla yàlla dinañ ci suturaal yàlla dinañ ci jàppale yàlla am na ko yàlla mën na ko moom moom bu ko amul sax dina jéem a def lu tuut ba ba ba ba ba defal la ko quoi moom femme bi femme bi noonu la meloon quoi mooy femme Mata Fatoumata Matar Ndiaye moom moo nekkoon troisième conseil fii nii euh, ci mairie bi. waaw kooku daal amul amul luñ koy luñ koy luñ koy kii wax. sincèrement parle man xaw ma xamuma lu xew ba ci euh, démb ci guddi rek ba ñuy ba ñuy ba ñuy fompaat ak yooyu noonu affaire bi man damay damay damay naan bàcc lan moo tax mu def lii quoi ban action boobu noonu moom je me demande parce que mënu ma nelaw ndax ndax li ma gis. mënuguma woon nelaw ba tey nii nii nii mënuguma nelaw nelaw ma benn yoon ci guddi a nekk man mën na nekk laay wax mais man moom wax dëgg neex yàlla xaw ba tey xaw ma lu xew tànk gars yi ah, confirmé lu ma wala police wax lu tax mu def man moom xamuguma lan moo war a tax mu def ko. waaw mooy am nañ ay ñoo doon toog des fois ñu toog bu demul fenn mu ñëw ñu toog waxtaan man mi di wax ak yow fanaan naa moom lu mat un mois doon nañ fanaan lu mat un mois ñu ñaar man moom ak sama benn sama benn copain mooy sama copain bi for arme bi topp ci kooku noonu ñun ñett ñoo doon fanaan fanaan nañ lu mat un mois kooku loolu ça fait plus d'un ci gannaaw kooku bu jékki-jékkee def li affaire yi man daf may daf may touché quoi daf may jàpp ba tey nii man mënut tëdd naa tëdd mënuma nelaw nelaw moom guddi démb defuma ko. Euh, Adama moom nan alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi ñoo dégg ay ay yu baax ci moom. waaw ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla na yàlla yokk waaw ñoo dégg ay nouvelles yu baax. waaw ak li ci jot xew nii yaakaaru ne jot na ci Sénégal tamit ñu indi bi daan boo xamante ne nii ku rey nit rek ñu la ndax yàggul dara dégg nañ ci ay fan lii ñëw xewaat yaakaaru ne jotul ñu dugal loolu loi boobu. loi boobu man je crois bu mu jotee dafa yàgg seulement que xaw ma yi nguur gi. yàlla ma ñu baal ma ci wax ji mais xaw ma lu ñuy xaar wala daa am lu ñuy luubal wala daa am loo xamante ne buñ ko defee da leen ciy fekk walla du leen arrangé man lu tax defuñu ko pour pourquoi xoolal Nigéria nu mel xoolal ma gàmb bi les sables kan nga fay gisati agressé sax sàcc sax doo ko fi déggati Mauritanie la même chose ku fa rey nit ñu rey la Nigéria da ngay rey nit ci saa si ñu ñëw defaral la pourquoi pas Sénégal ndax chaque jour un mois nga dégg ci ñaata mètre may ma cigarette mayuma la ray café la même chose may ma cent franc mayuma la da nay xeex ray génnee paaka mais loolu noonu dafa yomb je crois que dafa yomb trop li saawaay doon wax bàyyi jur jongal solal dundal ba nu mu toll nga ñëw xëcc rey loolu dafa yomb trop yàlla ñu ëpp yërmande te yàlla dafa ne ku rey na nga rey pourquoi pas ñu teg loolu noonu Sénégal je crois que loolu noonu bañ ko waree def ñun yàgg na dëkk bu bëgg a émerger nañ jéem a xool leneen la ñu mën a teg mais foog ñu jéem a teg loi boobu noonu nit ñi mën a tranquille nit ñi mën a nekk conscience tranquille ku fi rey nit ñu rey la bu benn boo ko defee benn yoon ñaari yoon doo gisati sax ku agressé sax comme ku rey nit ñu rey loolu daal loolu laa gisoon ci ci ñu def ci droit boobu quoi. ginnaaw coow lu tukkee woon ci mbir mi na mu demee ak ñaawlu gu ñu ñaawlu xew-xew boobu ne ay njabootu Fatoumata Mactar Ndiaye dañu ñu benn yoon ci joytu gun doon joytu li nga xamante ne mooy mbir mi ni mu demee te doon sàkku rek ci yoon mu taxawal mbir mi ba ñu jugé ki nga xamante ne moom lañ joxoñ baaraamu tuuma di ba soxna si du wuyoo ci turu sàmba Seeku Jaasow macha allah xam nga ñun suñu famille yàlla dimbali nañu woote téléphone donc kooku moom ñun dañ ci am dañ ci am sikki sàkka nan ngay nekkee lu mel na ci prison ngay am possibilité yu mel noonu day woote téléphone day envoyé ay lettres. lu nekk koy def ba léegi mu koy def suñu xel def ci tee ban possibilité lay am moom dañu woo téléphone suba sel baa ngi toog mu mel nii mbir mi mujj na antu ndax sofoor boobu ne ñu joxoñoon baraamu tuuma mujj na daal di jàkkaarloo ak way àttekat yi ca jàkkaarloo boobu moom Samba Sow moom da daal dëggal rek ay kàddoom daal di xamle ne mbir mi la ca xew ak la ko ca taq lépp du loo xamante ne daf cee ànd ak sagoom ci ay kàddoom dafa weddi lépp luy baraamu tegoon ci moom te wax ne moom moo rey soxna ba daal di liiraatal li nga xamante moom la ñu xamle woon ci enquête bi muy ndaw si nga xamante ne moom la doon àndal te ñoom ñaar ñu waroon a ànd ci ab mariage bu waroon a am soxna si bi ñu ko dégloo ci l'enquête bi la mu wax juge bi daal di koy fàttali bu ñu sukkandikoo ci kàddub boobu boobule li soxna si wax mooy faram bi di Samba Sow ñoom ñaar dañu diggante woon ab mariage ci noonu Samba daf ko xamal ni ko moom dafa amoon problème mu xaalis ngir li jëm ci wàllu li nga xamante ne mooy takk gi dox seen diggante ca noonu mu ngi soxla woon xaalis bu toll ci limu trois mille moo taxoon moom Samba daal di dugg ci néegub daal di dugg ci néegu néegub njaatigéem ba woon di soxna Fatoumata Makhtar Ndiaye daal di ci yokku moom juge ba que ne ah xamoon na daal ne néegam boobu saay su ne xaalis mu nga fa waaye moom Samba Sow dafa dal di weddi bépp kàddu boo xamante ne jóge na ci kooku noonu ñuy wax ne ab gelam la woon te ñu façon yéene ànd ñoom ñaar ci ab sëy moom daal li mu xamle mooy ne bés boobu nga xamante ci lañ faat soxna soosu Youssou moom bésub anniversaire am la tombeloon maanaam bésub juddoom te moom sax mi ngi xam la ne ñàkkul ñàkk gu war a tax muy ut xaalis mbaa mu di ko sàcc li mu xamal juge bi kay moo ne moom mbir mi li ci am mooy ne ab marabu maanaam ab sëriñ moom moo daal di faat soxna Fatou Mata Makhtar Ndiaye ci ay kàddoom muy nettali di wax ne sëriñ boobu boobule dafa dal di rend soxna si ba pare dal di koy jox ci deret ji mu naan te kàddu yi nga xamante ne dañul ci di ko dëggal mooy ne àndutoon ak sagam sagoom maanaam sëriñ bi daf ko liggéey daf koo takk ba li mu ko wax rek mu daal di koy def moo tax moom it bi ñu ko joxee dafa daal di jël ci bi mu daanalee ay kàddoom ci la juge bi daal di mbir mi ne ko léegi nañu dell ci waate ci waxuma takk gi nga xamante ne yaa ngi ko doon waaje ak soxna soosu mu ngi koy xamal ne ko yow mii daal li xew dëgg-dëgg mooy ne soxna si yaa ko fàtte bi nga ko fàttee xaalis donga tax nga fàtt ko ndax yaa ngi doon waajal sa mariage te soxla woon lim bu toll ci trois cent mille te ba ñu xoolee ci compte am ndaw si la ca manqué mooy trois cent vingt sept mille kon nag yow yaa ko rey xaalis boo soxla woon te gis nañu ba tey yow it yow Samba ngay nekk fii di def ay audio yoo xamante ne nii da nga ciy manipuler l'opinion publique maanaam xalaatu nit ñi di ci accuser ay doomu jàmbur yooyu lee kàddu tukkee ci juge bi mel ni lu ërtal Samba ba tax mujj ki daanaka dafa mel ni sax ku daal di sonn ba yuuxu daal di leen xamal ne leen bàyyi leen di ngeen di wax waaye nag daf cee teg ab révélation bu doy waar ndax dafa wax ne moom sàmba tantam buy wuyoo ci turu faatu Sow ak beneen politicienne bu ñu woowee Awa mu ne ñoom ñaar ñooñu daal ñoom ñoo rey ki nga xamante ne moom Samba daanaka sax woowee ca noonu Samba ci la tàmbalee di daal di joxoñ ay balaamu tuuram tuuma di wax ñi nga xamante ne ci moom ñoo takk rëpp ci mbir mi bu ci mel ni député bi di Awa Niang ak ki nga xamante ne moom mooy meeru Pikine bi ñu koy wooyee Abdoulaye Timbo di xam xamle rek ne ñooñu lee setuñu ci mbir mi waaye daanaka ci kaw kàddu yooyu le ci la ko substitut bu procureur bi dal di dagg daal di koy xamal ne ko daal da nga war a xam ne kat nit ñëppay juum waaye nag li war nag mooy da nga war a ànd ak sa sago que nit ku nekk da ngay juum waxal ni yow yaa rey soxna si ndax sax naroon nga faat itam doomam bi nga xamante moom mooy wuyoo ci turu Adama Ba ginnaaw si bi nga xamante ne euh, faat nga yaayam ca noonu sax moom substitut procureur boobu xamal sàmba itam ne ko ci kanam tuuti moom ma Adama Ba dina ñëw fii te bu ñëwee dina wax dëgg-dëgg mbir mi nu mu demee mu mel ni foofu ca bërëbu attekaay ba jàmmaarloo gu métti moo fa xew ci diggante attekat yi ak ki nga xamante ne moom lañ joxoñ baaraamu tuuma ci fàtt ñu fàtt soxna si di soxna Fatoumata Makhtar Ndiaye moom Samba Sow di xamle rek ne mbir mi ni mu demee ak liñ ci wax yépp lu ci bëri amul moom daal ci li mu wax mooy ne ab sëriñ daal Sall moom moo ren di soxna si ba noppi daal di koy Serigne ba moom mënatul def dara mu di ko ndigal muy def waaye ñoom attekat yi bu ñu sukkandikoo ci l'enquête bi ak li nga xamante ne moom mooy preuve yi nga xamante ne moom lañu am dañuy gis rek ne moom Samba mii daal daanaka mel na ni moom moo rey soxna si ci soxlab xaalis bu mu amoon bëgg ko faj ci ginnaaw si bi nga xamante ne nii joxe woon na kàddoom ci mariage bu waroon dox ci digganteem ak beneen xale bu jigéen mbir yi procureur bi dafa mujjee laaj juge bi mu teg ko ay daan yu métti bokk na ci daan yooyu dafa wax ne nañ ko teg ay travaux forcés maanaam nañ ko daal di njatt ci ab liggéey ànd ak loolu ñu tëj ko perpétuité maanaam ñu tëj ko ci giiru dundam ndaxte moom jàpp na ne ñu mel ni Samba mii daal amuñu seen place ci société bi te li ñu war a def mooy làq leen foo xamante ne seen yàq-yàq du yegg ci askan wi ak nu mu mënti demee Samba moom daana ko jamono ji ñuy wax daal mi ngi xaarandi ba xam juge bi ana ban daan la koy teg ndax ba fi mu toll nii kat génnee guñu daan yi nga xamante ne moom lañ nar a tekki ci kawamam wala li nga xamante ne moom la ñu fësal ci ate bii nii li ci mënti xew daal le 21 janvier maanaam fukki fanak benn ci weer wii ñu nekk ci la ñuy am résultat atte boobu noonu jërë ngeen jëf